anta alali ya waliyo allasi nga xam ne xalat kaana maratibuhu ay darajaam wa kullu xutubin te bépp xutube istaalat kawaana bihi ci moom makaanatuhu darajaam wa kullu xutubin bépp xutuba xawaamil qadri kuy aji màgg daraja di rutabin kuy boroomi garaat xadditan xattu daraana bu dana sippiku rutbatu fa darajaam ja xan xoxini xadri ko walis réeg sa daraja dana ko waawaalu ñi nga xam ne sa daraja daa àgg fu ne ba nga xamee ne képp kuy xutt bi rek ak lu mu kawe kawe daraja nga féete ko kaw darajaañ féete suuf sa daraja anta alwaxidu yaay kenn ka alfaridu koy aji wet almustaqimu koy aji jub fa man lam yadri koo xam ne xamut fadlaka sa nganeel lam tanfaxu du ko jëriñ taaxatu foo toppam nga yaa kenn ki nga xam ne yàllaa la teg ca yaawa nga aw ca di ci awaale ku xamul sa mbaax gii ku umpale sa mbaax gii lim sonn sonn du jëriñu arbaata gërëm loo nga rabbaka sa boroom id arbaa ba gërëm loo alwara mbindéef yi bidaxan ay bidaa amat taxaa yooyu raw nga leen billësi ci ki nga xam ne xamat matale na imaatatuhoo rayam nga yow day bi mbindéef yi saxee ci di gërëm loo rekk bidaa yi maanaam topp bidaa yi rekk mel ne bidaa mooy dara yow nag nga ñëw rey bidaa yooyee ci kàttanug buur bi nga xam ne mooy dundal moo rey ba nga defee loolee day nga daal di gërëm loo sa boroom am ngërëmam faw faw lawlaa maxaafat rabbi pour lu ko nag ragalu sa boroom xootuma wax fii ko ci yow sanaa aw tagg ni ante yow alwazimu waa aji màgg ja ëllëg yi ja nga xam ne baanat feeñ na en vallatu foo màggam nga foo boo jaar ik fi nii sëñ bi waxoon na fa nee na ne antal xawaamu la si baanat xawaamatu foo mu ne ko rek waalaatee wax joojee nga waxoon sa borom mu wax la ko waaw tagge la ko te yaa ko màgg nga xamee ne sag màgg fis na dara làqu ca wax la xalaa muqrihin ndax benn bàkkaar dana war aji tagg yuqrifu koom comme dana war tagg in xaala bu waxee ne ante yow alkabir waa aji màgg ja allasi ya nga xam ne baanat feeñ na tabaaratuhu màggam nga ba tey mu ba tey mu nga ci it fi nii ante alkabir allasi baanat kabaaratuhu ne ko sëñ bi ko war tagg ba waxee la waxoon yàlla ndax des na ko ca teg jenn waraange ne la yaa ko màgg ki nga xamee ne sag màgg dafa fés dara làqoo ca waaye mu tasal dënnuwaat di jëme gën di aji màgg mu muntu xuuta di wax nga waxoo ñoom yàlla ne ko anteeru aljamil waa aji màgg ja ëllëg yi ja nga xam ne baanat feeñ na jalaalatufoo màggam nga ba nga nee sa borom antal jalil allazi baanat jalaalatuhu rek wala yàlla defoon nga ko màgg màgg nekk ci kaw li kaw léegi kon daal moom nekk nga tabax yi di sàkku nee na wala ci buur bi shahaadatuhu seeroon abshir bëggal attaque di kay ne la shahaadatuhu seeroon sa kama taxawaa ni nga ko soppee bu fekkee da nga doon sàkku yàlla seeroon la doon nga nga doon ab jaamam di liggéeykatu ab yonentoom xamal ne kon yàlla defal la loolee si ñaan la seere soosu subhaana rabbin tudd naa selluk ab buur karimin bi aji tedd laa sharika ba déet jenn aji bokkaale lexoo di ko ñeel faabat baawaan na xale ko ci yow xinaayatuxoo ak jagleelam bilaa xaddin ci lu benn limit maa ngi tudd selluk buur bi nga xam ne amul moroom moom nag moo la jagleen ndimbalam fonkal la boppam ak jagleelam baawaan ci sa kaw ba kenn mënu koo natt ak xiyaas am waa wattal na mi daa di sama baa wa aqlaami ak samay xalima wa nutxa fami ak tuddug sama gémmiñ adduna madixi ka gën jaa ñëwee sag tagg wala gën jaa suufee sag tagg yaa mu ne war a xam ne taaba teew na xiimatuhu jikkoom ne ko sëñ bi li gën a neex ci sag tagg rek te nga wala ci gën a neex suñu xalima ak samay daa lott nañ ci lott naa ci wax ko ci sama gémmiñ jasaaka yàlla la fay xam ne gis ma allasi buur ba nga xam ne yàlla si yàlla fay dama ñaan li nga xam ne xam ne jëfoon nañu xëy ji sax ngeen ji pay gannaaw jees yi niki faa faal xalifa tuwaa xalifaam ba yàlla na nga xamee ne moo mën a fay tey fay yàlla fay lu baax yàlla na la fay ngeen ji fay nañ ko woon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba xurmatul Mustafa ci orom ak ñu tànn sallallahu yaa dara tedd nga ak ilaahu buur bi max waa ko wal ay ak ñaawal wal saxaabi ak saxaaba ya maa xaabat li fekk fàddu na nihaayatuhu ak yemukaayam suñu borom amul yemukaay li fekk ñu ne wekk ay yemukaay ak yaa saxal salaatu ak salaamu ci yonante bi ak mbokkam ak i saxaabaam walahu aydan min kaatibin tukkee na ci aji bind ñu bind dañ koy aji bakkaawa jàmmat ko bare na mawaalimuhu ay tooñaangeem azka salaamin gën jaa selli ak noo bihi boo xam ne ci moom albawaa musiba ma yusaalimuhu dana maarlanteeg moom mooy jubanteeg moom kii bind lii daa bare bakkaar lool ay tooñaa ngeen bare lool waaye nag moom muy néew bu sew boo xam ne ndax yàlla ci sewut naa boobu mu jaaree ci tàggoog musiba mbaa boog musiba yàbbati ko jugoonteeg moom boo ko defat lu ko naqari ilaa aliyin jëm ci wàllu yi aliyin kuy aji kawe alimin kuy aji xam alamin kuy xalam cheikhi siooxi kuy sërëwab sërëw sa ëllësi ka nga xam ne jàmmat bare na makaarimuhu ay teraangaam ay namu ci namm ahmad ibnu muhammad mooy ahmad ibnu muhammad sayyidi kay sama sang sanadi tey sama wookaay baxru xuraani kay géeju xam-xam ya wa joodul joodi tey tawat tab xaatimuhu tey xaatimi tab xisbul bilaadi kay naataangeel dëkk ya waqin diilul xibaadi tey làmp jaam ña ma xam boobu seen nu xoolaat ba xam lim bind ma ma ànd ak la nga xam ne badaa feeñ na ndax dafa doonoon mëh ma ci alkubeer di taqale mëh jeeg maami te muy alkubeer muy mëh ma badaa saa yu feeñee rek moom làmp boobu lii dolaamin ñeel ak lëndëm ba leer xaatimuhoo aji lëndëmam jë wala xaatimuhoo aji yeexam jaa leer nee bi mu tuddoon loolu mi ngi bàyyi ko ci moom jëm si ci wàll yi nga xam ne yàllaa ko teg ca kaw muy ko xam di sëriñ sëriñ si di ko bari ay teraanga tudd Ahmad ibnu Muhammad di sangam di weer kaawam di géeju xam-xam taboo taboo bi mel ni ab taw mbaa nga ne taboo taboo ba mel ne xaatim mbaa mu raw xaatim di laataangeel dëkk yi di làmp jaam ñi saa yoo xam ne lëndëm nar na leen a gaañ baxaroo géej la makaarimuhu ay teraangaam wablun waane la maraaximuhu ay yërmandeem faabat baawaan na maraamimuhu ay màngam li man jëm ci ki nga xam ne yi laa umuhu dana yeewoog moom ay teraangaam daa mel ni géej ay yërmandeem mel ni waane lay sottee ay màngam ay xeeram yi sedd di baawaan ko walloo jot ca maaxal la wàccut daaram kër wala xuturam du ceegeenu peey wala baabam du ceegeenu benn dëkk illaa waxeeru waraa dana nga xam ne ngën ji mbindeef yu naa di ñu dana naanaalanteeg moom dana bokk ak moom toog fii xaa ca moom yéen foo mu nekk rek ma nga faat ku baax ki yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo xam kër la moo xam ab pays la moo xam ab dëkk la fu mu nekk rek nekk faa warante bi sallallahu alayhi wa sallam nga àllihi ci moom bi taslimin ànd ak ba ñëwaanu yëf yi ba jëw dikkee bi mën a xaajal wàll yi ci mérite yi mën a wàll yu yan dootoog na ci moom nag mu xeesul xabdi aji xett lu jaam ba raximuhu te aji yaramam mu xeesul faaxili sàlla yàlla mi xett lu jaamam di ko yaram yàlla na saxal teraanga ak jàmm te jàmm ja mu mayaale ci sëriñ bi lépp lu di ay mébétam di ay bëgg-bëggam wala stajaara mustalaqu bihi ci muy mar un seen cam li mu ko bëtt yi ngir aw tiisam illa waqat du zaala ndaw bu doon an wees ko mbaa lépp loo xam ne yëf saa di mu foo dana feewante moom nit ku làqu ci moom ndax ragal aw tiis rek la ko doon gaañ lépp de daal di tàggoog moom wala rajaaxu te yaakaaru ko li tam yi lim nawaali ngir maye ak may fatam seen cam illa wa aataahu ndara mu jox ko maa la nga xam ne jaa dikk na wax wa te mbir moom moom raa imuhu aji sàkk la ko ku ma sa yaakaar ngir dara boo dikkee rek mu daal laa jox loola nga doon sàkku kutt bu kutt bu la wa xawfan te xawfa la mu xiisan bi aji xeetlee jaamahun te aji booloo lépp lu baax wa isa xudda ndéem li ñees na al kiraama tëdd nga falaa mar oom de seen cam yu kaarimuhoo di teddanteeg moom yàlla ko def mu xupp bu di xawsu mu dajale lépp lu baax ci cooro yàlla buñ dee wax ñu baax ñi mu yàgg-yàgg kenn du ci mën a taxaw di ëppanteeg moom teraangaa ku baax ndax moo nekk ci seen kaw yaa ay sa sanadu yaa wóorukaa bi alma amoo ko di ko yaakaar naa ilahoo morom nga yaa ma naa nga xam ne xoo moom alxibb mooy soppe ba lil haadi ñeel yonent bi aji jubal waxaa dina xoo te aji liggéeyam doxaa xabdin déggoon wooteeg ab jaam wala ñaanub ab jaam madinin bu dëdduñ ci sala ki bor xadd li taari bu xoo bépp baraanu bu ko sàkkoo dibbaani ci bor ba laxaara mu xoo aji fayam ja féet lowoon ci bépp bés laax ba fay na da ko waral ko wane nga xam ne ak wóorukaay la te say may ku ko yaakaar yaakaaram di tas ngay sopp yonent bi di liggéeykatam déggal nga wooteeg jaam bi nga xam ne dafa diis ak bor bis bu ne ki koy fay taxaw ko tem naa ko fay ma fay ma af naa jeexal na alquran boole ya min fu ci moom xam moom ñëgg ñëgg xool laa yu faa yokku xool bi tàggoo moom falaa taqumu du mën a jóg ilaa xaliwa jëm ci kawe xasa imahu ay dogoom am na ñëgg ñëgg xool ay njàqare ki boroot yu ko gàllankoor yoo xam ne amatul dara ci yéeg jëm ci kaw um nun yàlla na nga xéewe xaalaye ci man bi alxaawin ci ay gendiku tu xal lisun yu daañu ma musal yaa man yow mi nga xam ne ataana dikkal nañu xalaa boo din ànd ak sori wala imuhoo ay dabi teraangaam wala tu xayib te yàlla boo tas bu yàlla boo sooyal rajaa yi sama yaakaar fii ka ci yow fii abadin ci faaw walaw takarrara ak doonte baamu woon na min zambi ci sama bakkaar xarra imuhoo way réyam was gub yàlla na nga sotti xale ci man na dan ak tab ah yaagu dinaa dunde bi ci moom abadan faw bi jaay ahmada ci darajay ahmad man ka nga xam ne laaxat feeñ na ba alimuhu ay màndargaam wala ay yoonam yu leer yu ràññi ko sëñ bi xéewali ma xool ma gendiku boo xam ne ca laay jaare mucc faw yow mi nga xam ne li ma lay sori sori say xéewal mi agsi ci man samay bàkkaar nag ak sama mbon lu mu rëy rëy rek bu mu tax nga tas sama yaakaar
teema sottil may goo xam ne ci lay dunde faw ci daraja yi yonante bi nga xam ne moo wane yoon wu leer wa muhammadin te mooy muhammad xëyri man may ngën ji koo xam ne yurja def na ko yaakaar li jaa ihatin ñeel jee wa xëyri waaxin te ngën ji aji wattu li sirrin ñeel secret wa huwa te mbir moom moom kaatimuhoo aji nëbb la ko salla yàlla na dolli tedd nga àlli ci moom kama yarab daa naka mu gërëme mu karrimuhoo aji teralam ja maxa salaami ànd ak dolli woolu allëfi jàmm ja nga xam ne mawlaahu boroomam aalimuhoo aji xam la ko mu ne sëñ bi li ma lay ñaanal maa ngi koy ñaan dara ji yonante bi nga xam ne moom lañu yaakaar ci jée ju yàlla indi yàlla teggi ko ci barkeem moom la yàlla xamal secret te daw ci feeñal lu may la ko yàlla may ndigal mu feeñal ko ca yàlla na ko yàlla saxoo dolli nag teraanga ak jàmm wal aali ak ñooñ ña wa sax bi ak saxaaba ya waq bi te yàlla na nga faj rabbi yow sama boroom xan xajal walis ak gaaw day na mari in boroom as cam zàll kook tarxiis na kay tas foo ngir bu sellee xawaatimuhoo ay mujjam dafa ñaan yonante bi yàlla doole ko teraanga ak jàmm mu ne yàlla na yàlla doole teraanga ak jàmm itam ay mbokkam ak i saxaabaam te yàlla man mii nga fajal ma fi saasay saasa bor yi nga xam ne moom laa yenu ndax ma am mujj gu sell mujj gu rafet wala hu aydan haadi lii baraawatu man mooy bataaxelu koo xam ne daa xat xat na bii ci moom alxiyalu pexe ileeka jëm ci yow yaaman yow mi nga xam ne ab taxilu danaa toroxloo bii ci darajaam lillahi jëm ci yàlla sëñ bi bataaxel bii daa bàyyi ko ci man jëm si ci yow may koo xam ne amatuma menn menn pexe maa ngi toroxlu jëm ci yàlla nag te di ko jaare ci sa daraja yaa xew-xew sëriñ bi ahmadu te ahmadu laay wax yaa man yow mi nga xam ne xaara gëlëm na fii ci moom sanaa fikri leeruk sama xalaat wa yaa kaamilan yow aji mat daanat doj mokk na toroxlu na la xoo ñeel ko alkumalu way mat ña yaa rahmatan yow yërmande xàmmat doj matale na alkaw nay ni yaari mbindeef yi iddina sabat ba mu wàccee nga xam ne kam ummatin baraana aw xeet xat wasaloo àgg nañu bikka ci sa daraja li raxmaani jëm ci aj yërëme ji ku liqta bindeef na la nafan mbir mu ngay njariñ li kullil muslimina ñeel mboolem jullit ñi kama su yirta niki mujjaleef la duran ngay lor li kuffaarin ñeel way weddi kutiloo muñ rawaf na leen bikkum ci seen daraja ne yow si ahmadu bi nga xamee ne moo dee xalaat ci sa mbir sama xalaat lu mu leer leer day mujj gëlëm yow ku mat ki nga xamee ne ñu mat ñëpp xam nañ ne doo seen moroom bañ di la maajal yow yar maa yow yar maa de yàlla ji nga xam daa daj adduna ak alaaxira daj nañ ko ak ñooñu suuf daj nit ak jinne nga xam ne baraana mbooloo mu àgg ci seen boroom te sa daraja rek lañu àggee yow day yàllaa la sàkk ngay njariñal mboolem jullit ñi def la nag ngay ngaañ di lor ci mboolem yéefar yi nga xam ne rey nga leen jihaad nga ak ñoom ba rey leen ci yoonu yàlla wa id barasta ba nga feeñee borosa shamsi kem feeñu jant bi fi umamil muxtaari ci biir xeeti ka ñu tànn surra dégaleef na alhuda jub was daanat te rafet almilalu wàlli diine wasi'a te naqaraleef aw juhu ahlil kufri kanami ñooñ kéefër kullihi moom képp ci ñoom wan xatta te sippiku lahum ñeel leen dooloon ay nguur idrumi xat ba nga xam yëkkateef na lakkum ñeel leen dooloon ay nguur ne ko sëñ bi da ngaa feeñ ci biir xeetu yonante bi mel ni ab jant fu la ndëmoon nga leeral ko jub bu doon jëmm nga ne dégg na lool lépp lu aju ci diine gën a waaj gën a rafet kéefër nag ak ñooñ kéefër daldi am naqar lool seeni kanam ñaaw lool seeni nguur daanu yow nag sa nguurug lislaam yëkkati ko fal yow ma tey jii walhamdu te mbir moom cant ga lil baari yi ñeel na aji bind ji tey jii day lanaa ñeel nanu sharafun tedd nga doona madaahu loolu nekk li di yées lefam ma alxalima aji kawe al jaw saaw bi jurub jaw saaw wa zuhalu ak zuhal tey day noo ngi sant yàlla am nan teraanga joo xam ne moo féete kaw biddiwee nga tudd léegi muy aljawsa ak zuhal biyam ni talxatika ci barkeb saxar kanam bi almaymooni bari buñ barkeel talxatuhoo fenkam nga la waaka bul koona yow ma axlasa du sellal al ahmaala jëf ya man ña nga xam ne xamiloo jëf nañu bi sa xarkanam feeñee rek ci àdduna ak ni sa xarkanam barkeele ci lañ lépp amee mooy ci leen amee teraanga joo xam ne moo féete kaw moo gën a yëkkatiku bi diib joosaawuk zuhal dara lañu jëfa ko sellal te yaa tax bul ko nag yow duñ àgg ci jëfal seen boroom tey sellal fii tay yi nuurika nekk na ci taxañu sag leer nuuru samsi leerug jant ba ma xamarin ànd ak weer wan tawaate taxañu na al afraadu benn benn ya wal jumalu ak mbooloo ya fii xulaaka ci say kawe sa leer gi moo ambaale leerug jant ak leerug weer mboolem mbooloo yeeg benn benn yi ku ci ab ab cër ku ci yëkkatiku daraja itam lépp mi ngi ci biir sa daraja ak sa yëkkatiku fa kullu madihin wépp tagg baliixin way aj dem dawal ci rafet xiila wa waxeef na ko fi rajulin ci waay fa anta yow saaxibuhoo yaay boroomam ya ayuha rajulu yow mi dëgg-dëggi waay yow mi dëgg-dëggi góor wépp tagg wuñ wax ñu koy yéem ci rafetaay ñu jëme ko ci nit xamal ne ci yow waroon a jëm yow yaa ko moom dañ ko jëmale ci ku ko moomut waaye yow yaay boroom wa kullu xatabin mépp mbamb muhimmin muy aji yitteel xat bu wax itam moom wooyof na la loxoo jëm ci moom fa ante yow tadd fa xoo da nga ko jiñ fawran ci lu gaaw wala yasilu te du agsi mbir mu tiis bu ne joneet jëm si ci nun bu la woowee rek ndax nga delloo ko gannaaw fi saasay saasa danga ko daal di bëmax mu sorinu ba tey du agsi sullaaku nax jika way suubu sa yoon wi naaloo am nañu kulla makrumatin bépp teraanga maa fi jami hihimoo déet mu nekk ci mbooloo seen ay bun sikk wala xalalum bi caa génn genn yàqu wala xët ñu soobu sa yoon wi te dëggu ñoom ñëpp am nañ teraanga ju rëy rëy ñoom ñëpp set nañ wecc amu ci ku amee sikk mbaa ku yàqule dara wa inna aada ak naka sa noon ya al ula ña nga xam ne xataw doo nañu wa abaw te ñu bañoon baa oo dellu nañu bi suxtil xal yi ànd ak merum aji kawe ja kullan mboole seen waxum te mbir moom ñoom xudiloo wàcceef na leen kenn dimbalewu leen say noon nag moom ña doon jéem a bañ a tuttalu ñoom ñëpp yàlla mere na leen ñu torox ba tey amuñu lañ bëggoon moom merta yàlla na dundaleef la taamira nooxin dundaluk noox di safine te may borom gaal ga fii am nin ci ak wóolu wa yum nin ak barke wa xijin ak tedd nga lay sa yan taqilu loolu du toxu xale ka yàlla na doon lay nekk ci yow ak baru ridwanil ilahi gën jaa màggi ngërëmal buur ba bila xaddin ci limite wa asxaabika ak say àndaale muy say taalibe alhaadina ña di way jubal man ña nga xam ne kamuloo mat nañu yàlla na yàlla gën a guddal saw fan nam guddale woon fanu yonante yàlla nuux te lépp nga nekk ci mucc ak jàmm ak barke ak tedd nga joo xam ne teraa nga joo xam ne du toxu mukk yal na la yàlla dolli ngërëm lu amul ab yaak sa taalib yi nga xam ne ñu ànd yow te dëggal walahu aydan alaa yëgal ayuha cheikh yow sëriñ bi alkathirul mawaahi bi muy aji bari ay may ataytu ko dikkal naa la ashko danaa jàmbat maa la nga xam ne jaraa xew na min masaa ibi ci samay musiba yow sëñ bi nga xam ne yàllaa la may ngay joxewaat te may bari lool xamal ne ñëw naa nag di la jàmbat xeeti musiba yi nga xam ne ñoo ma dal li tun xidon yi ngir nga xeet li ma fawran ci lu gaaw fa indi naka man xamaltu yanu naa min xuquqil waraa ci aq mbindeef yi maa loo xam ne laa yu xaddu defu ko lim bi xaasibin ci aji lim sëñ bi damaa bëgg nga xeet li ma ci li ma yenn ci aqi doomi aadama yi bari na bariwaay boo xam ne lu waaye mën a mën a takk ak a wàññi doo ko mën a takk doo ko mën a wàññi alaa yëgal xottahaa yàlla nga leen sippi an yëwalis ma bi fadlika ci sa ngëneel xaajilan ci lu gaaw fa ante yow ëllëti yaay ka nga xam ne turja def na la yaakaar li nay liru raxaay bi ngir am xemmem téef ya sëñ bi mbooleem ak yooyu ma gàddul doomi aadama yi dal ma koy wàcceel ba lépp wàcc fi saasay saasa ndax yow kat ku bëgg am lu baax yow la ca yaakaar te sa bortu jéem na maa muñ xataa xëy la ba ñàkkee sabar yi sama muñ falam ajit te amatuma sabilan aw yoon li sabarin jëm ci muñ duuna dafaxil mataaxi bi ci lu dul fekk coono ya jéem na maa muñ ba tëne mënatuma weesu fii kon nag teggi coono yi rek moo ci sas te yow yaa ko mën a teggee fokk nekkal moo xërisandi ay xeetali wi ñeel ma aajilan ci lu gaaw bi muhammadin ci darajay muhammad shafiin waraami aji tinu mbindeef yi almarjiw yi kadi kuñ yaakaar xindan nawaa bi fa xew-xew yi jamono ya alayhi yàlla na doole nekk ci moom salaatullahi teralu yàlla tuma salaamuhu wa topp jàmmam madad dahri jurub jamono maa dumte li fekk sax nga almalaza di wéerukaay ba li xaari bi ñeel aji daw maxal aali ànd ak ñoñña wal ashaabi ak saxaaba ya saadaatina ña di suñu sang al ula ña nga xam ne rabaw xëy nañu mbaa mujj nañu suxba juudin di néeri taw ba li fi nekk bu xooral xajaayi bi di géeji ay kiimtaan dim ko woon sëñ bi xeet li ma léegi léegi la nekk ci daraja yonante bi nga xam ne mooy tinukatu mbindeef yi moom lañu yaakaar ci xeeti xew-xew yi tiis yi wàcc tur gi mu tuddante bi nag mu ne yàlla na ko yàlla dolli teraanga ak jàmm li fekk nga xam ne yow sëriñ bi yaa ngi doon làqutukaay boo xam ne kuy daw rek jëm si ci yow làqu ci yow yàlla yàlla dolli teraanga ak jàmm itam mbokk yonante beeg saxaabaam yi nga xam ne dañoo meloon ne ay niir yu sotti wees nañ ko sax dañoo meloon ne ay géej ci ak kiimtaan ñoo meloon ne ay géej yi kiimtaan ayaa cheikhana yow sunu sëriñ bi yaa waaridal xurri yow aji doon sang ya kullihim képp ci ñoom ak xis nii yàlla nag ma xettali ak xis nii yàlla nag ma xettali yaa kathiral manaaxi bi yow aji bari ji ngëneel taa wattu baaxoonaa min ko ci yow aljuuda tab ga wal fadla ak ngëneel la wan na daa ak tab ga mbaa may ga walam axrif te xamuma xayraka kulli yow li jël bil mawaaxi bi ngir ñoddi ay may yow sunu sëriñ yow mi nga xam ne sang yépp yaa leen doon yor la ñu rawoon door lu ñëwut suñ bi xett li ma xett li ma li ma taamu ci yow li ma tàmm nga di ma ko defal kat mooy sottil ma sama yi nga xamee ne du jeex te man xawma kenn ku ma yaakaar ku may may ku may yow xalil baxru ndax géej ga illaa mawridun ndare muy ab rootukaay baaba bopp kay na xadd bu xoo ndoxam may aji neex li waaridihi ñal aji rotam ja ak zam aani kay aji mar bin duuni xaajibin jublu jan ajiir la xaddu xazumat rëy na jiddan lool dunoo bi samay bàkkaar wa inna haata naka ñoom kala shay'a mi ngi mel ne du dara fii wabulin ci ay waame li jadd waaka ñeel sag may saaki bin waame wuy aji sotti géej du lu may rootukaay boo xam ne ku ku as rek daal di root bu jeex mukk mu ne koy noo nga mel nag da ngay géej goo xam ne ku bëgg rek na daal di ñëw duy ba foosal daal dem te kenn du ko aaye sama bàkkaar nag daa rëy lool waaye nag moo ko seetee ci sa mbaax ak say may moom li ñu rëy ñoom bàkkaar dañuy mel du ñu dara mel ni rek gaalu tobal bu ñu sotti ci dex wala géej du ca feeñ bàkkaar rëy yi du dara fi yow fa ashid yàlla na nga texeel di fadalin ci ngëneel min ka lu tukkee ci yow yaa cheikh yow sëriñ bi taalihi sama muur li arji xa ngir ma dellu masruuran mbir may ku ñu bégal bi nay lil maraaxi bi ci am xemmem téef ya wala tatturu dan ni te yàlla boo ma dàq bil jinaayaati ci sababu tooñaange ya xaa iban mbir may aji sooy faraaj ji na daaka aji yaakaar sak tab aljammi ngay aji bari laysa bi xaayibin du aji sooy sëñ bi ci sag mbaax dal may sëñ bi ci sag mbaax dal may jox muur mu rëy rëy mu yéeme yéeme ndax bu may dellu ànd ak am lépp lu ma bëggoon ànd ak xol bu sedd samay tooñaange yu bari bu mu tax nga dàq ma ma delloog loxoy kese te xam naa ne yow ku yaakaar samay gu bari gi du delloo mukk ak loxoy kese na waaru ko sag may mab doolul lu ñu joxe la wa fadlu ko ci sa ngëneel waasixun aji yaatu la wa baabu ko ci sa bunt maftuuxun lu ñu ubbi la li raajin ñeel aji yaakaar wala xiibin ak aji xemem say may danga koy joxe rek sa ngëneel daa yaatu ba ñëpp xaj ci xajoo na ñëpp sa bunt kenn du ko tëj sa buntu mbaax sa buntu taj dañ koy ubbi rek képp ku bëgg dikk am lam bëgg waxab du ko sab jaam ibrahimu ibrahim kaatibu madhikum